waaw alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen yéen gàttanoo nuyoo bi ziyaara bi leen ko delloo gannaaw nuyoo bi noo gën a sant sunu borom mi nu booleeg sëriñ bi di gën a sant yi sëriñ bi muy suñu lépp tey ak ëllëg ndax lu mu tax fàggu fàggul nanu ko te jubóo na ci borom lu mat a ñaan ñaan na ko te boobu nangul na ko kon sëñ liggéey sëñ bi rekk fi sëñ bi rekk fi nekk eh, liggéey bii nag moom ndokk bi nga xam ne man caa bokkoon fii lañ ma fekkoon ma ànd ko yéen ndokk bi nga xam ne caa bokkoon waxoon naa ne nag ci booba itam bu ngeen amul bu ndokk lépp mën naa nekk ci seen loxo noonu laa ko noonu laa ko xamante noonu bu amul bu ndog amul te dëggu am fu ngeen bëgg màgg fa dana dana ko weesu dana ko weesu njor waaye lépp nag nay sëriñ bi lépp nay sëriñ bi bu daal lu ci rax lu néew néew néew rek mën na ko yàq ndax sëriñ bi raxul raxul dara digg ak borom sëriñ bi raxul dara digg ak borom kon liggéey bii liggéey liggéey boppam la dëgg la ñu am chance ñu am tawféq eh, ñu tudd leen ci liggéey bi waaye lépp tawféq Sëñ Tuubaa la ak pagute ngeen xam loolu xam ne da ngeen am tawféq waaye liggéey bi liggéey bi Sëñ ni mu doxee ak fii mu àgg niiw na eh, mbooloo mu jóg dara tax leen jóg ñu dugg àgg fa déedéet nag yëpp Sëñ Tuubaa la mooy mooy mooy mooy mooy kawee di di wéy kon da ngeen am tawféex rek waaye lëg yëpp Sëñ Tuubaa la ngeen ngeen waaye nag ngeen xamee ko noonu da ngeen ngeen am ngeen tawféex ji nag da ngeen di xam ne seen tawféex la rek waaye lëg yëpp Sëñ Tuubaa la dëgg la kon taxawal ngeen ko waxoon naa leen bu ngeen amul ndog fu ngeen bëgg màgg fa rek dina ko mën na ko dina ko gis ginnaaw nag alhamdulilah rabbil alamin yéen lii liggéeyu la am yéen am tawfeex ci ci ci ci ci ci ci ci mbooloo booloo ci booloo ci kawam parce que yéen ànd di sa liggéeyal Sëñ loola alhamdulilah rabbil lu mën a wéy lu mën a wéy ci kaw ngeen xam ne liggéey Sëñ Tuubaa rek la yoon kenn ni ko ci il faut ngeen xam ne la ngay Sëñ Tuubaa rek la ngeen positif bi di jiitu positif bi day jiitu jublu gi jublu jublu gi tegu ci bu ngeen ko defee noonu xam ne liggéey Sëñ Tuubaa la ngeen ànd na ngir Sëñ Tuubaa di liggéey Sëñ Tuubaa kon kon tawfeex Sëñ Tuubaa jii nga xam ne moo ko indi moo leen di gàttandu rek moo leen di niital fi ngeen am fi ngeen di am kon loolu rek mooy li ci am solo xam ne liggéey bi dëgg la taxaw na waaye lépp ci bàggu tëf sëriñ bi la waaye yéen am tawféex ci taxawal liggéey bi kon nag ngeen fexe rek fu ngeen bëgg fu ngeen ko jëmee rek mu àgg fa dara mënu doon ko may nag loolu la mu sëñ tuwaay kese sëñ lépp na sëñ bi tax ngeen ngeen taxaw ngeen taxaw takku ndax saa saayu fas yéene xam ne da nekk ci liggéey sëñ tuwaay dëgg nag ci saayir si mënuñoo ñàkk daal tudd dara ndax comme société ni ko lu mel ni société comme dafa mel ni kon société la société ndax dox yoonu jamono la mm-hmm. waaw man dara newu ci waaye nag yéen nga xam ne seen société bii moom sëñ Tuubaa ko moom nii mu doxee ak fi mu àgg sëñ Tuubaa rek la waaye mën ngeen sant yàlla ndax yéen am tawfeex bi ñu deen ci tudd la ca des la nag la kon mooy yéen ñi yéen ñi yàlla defal ngeen ànd ngeen ànd ci ngeen góorgóorlu nag déggoo ndax déggoo gi mënu déggoo ci ñàkk moo leen dimbali ba ngeen ba ngeen ba ngeen ba ngeen ba ngeen mën a koo saytu mën ko yor doxe ko doxe na ngeen bëgg a doxe màgg mu wàgg fu mu war a àgg il faut que ngeen déggoo euh, yaakaar naa ne déggoo gi li ci li ñàkk déggoo gi li ci indi rek moo di dafa dafa dafa dafa dafa dëgëragul waaw dafa dëgëragul ndax mbirum sëñ bi rek la moo ko àggale fi mu àggale fi ginnaaw dëgëragul nag ala kulli li koy dëgëral muy ngir ànd te déggoo ngir ànd te déggoo te war na wurt wurta jafe bu ci génnee rek bu raxul rek dana yomb li may wax ak caa man ci laa bokk yàlla dogal caa bokk da ngeen fay ñëwoon ba bokk ci léegi kon war na maa wax a yéen kenn laa ci yéen man naa wax war na maa wax ak yéen ak cër cër bi ngeen ma jox mu ñaari cër yooyu laa laa laa ciy waxee kon faw déggoo am waaye mën naa yomb ndax ni ma ko dégg ay ay ay jooyoo ngi ci ay jooyoo ngi ci waaye jooyo gi la koy dindi rek muy dëggu ci la liggéey bi la Sëñ Tuubaa la kenn ku kenn ku nekk ci yéen mu laxasaayu xa jàpp ne da si liggéey Sëñ Tuubaa bañ ci sédd dara nag ndax lu ngeen ci sédd rek ci wàllu adduna rek du ngeen dem kon déggoo diggi diggi amul solo xool leen xool kenn ku ne la ko la ko ci dugal liggéeyal Sëñ Tuubaa la na na na dëggu rek dana jeex ko defee ngeen ànd yéen ñëpp ñeen ànd yéen ñëpp xam ne benn liggéey bi benn la lu gën doon doon mbooloo itam liggéey bi benn la te ngi Sëñ kon il faut ngeen déggoo ci seen biir ndax mooy tax ngeen mën a ànd ndax ànd gi mënu ci ñàkk il faut que ñu ci seen biir li dox seen diggante ba ñu amul solo yooyu ci am nañ ci am xam naa ne amul solo bu dëggu gi amee rek jublu gi am rek ngeen xam ne sëñ Tuubaa ngeen di liggéeyal lépp dana na sax lépp dana na sax ngeen xam ne itam nag bu ñu nee société ay société ngi ci ngi ci réew mi waaye benn société boo xam ne war na ci mën a ëpp doole bi daanaka amul il faut ngeen jógaan nag gën fas yéene ko gën a gën a dëgëral ngeen koy gën a dëgëral mooy ngeen bañ a te xam ne suñu tubaab la yéen ci li nga xam ne nag ma adduna mi nga la ak rek la maslaa maslaa maslaa baatu arab la mooy mooy yéwénal il mën a ñàkk da ngeen ko da ngeen di dellu saar nag tegaat gën koo tegaat ci yoon société la ngeen gën koo tegaat ci yoon ndax moo leen moo moo moo moo moo doon moo moo daanaka mooy mooy boom gi leen di takk boole takk yéen ñëpp. te la ca jiitu mooy ala kulli xaal ngeen il ngeen def li li mu laaj da ngeen ko def da ngeen di seet da ngeen da seet ñu xam administration ngeen won leen société bi won leen ñi ko ŋànk ñu xam kenn ku ne la jaadu ci moom ci masla ci àqam ndax ku tënku ku ci tënku ci yoon liggéey bi rek kooku dafa da nga am sa àq bopp. àq jooju il faut que ñi xam ne xam ñi nga xam ne xam ne administration il faut que seet si xam ne xam ne leen ñu tëral leen ñi ñi ci tënku ñëpp kenn ku ne lay àqam ñu doog ko ko jox loolu euh, mënu see ñàkk ndax euh, liggéey bi rëy na lool te it kawe kon. Eh, loolu rek la eh, yaar yow rek la ñun ñëpp ngeen bakku génn jublu gi xam ne Sëñ Tuubaa ngeen di liggéeyal ngeen wëlbatiku nag dimbali société bi ndax mu gën a ndax mu gën a mu gën a gën a gën a gën a gën a mën a dox waaw loolu nag mooy eh, def maslaa yi ci war yéen seen ñi xam administration ñu seetal li ñu seet ngeen gis seen ñi ngi tënku ñi tënku ci liggéey bi kenn ku ne lay ak xam ñu xam ko ñu weer bu dañ jox ko ko loolu mënut a ñàkk loolu mënut a ñàkk kon il faut que ngeen defee ko noonu daanaka kon yar yooyu rek la ngeen ko ak yooyu seen biir lu ngeen mën a juyoo rek lu jikko yu wute wute lu xel xi yu wute wute bi moom benn la ngeen góorgóorlu nag kenn ku ne nag xeex ak boppam xeex ak boppam focc occi sànni occi jikkoom fee xool jublu gi rek ngeen àndandoo ko loolu rek moom mooy mën a am waaye xel yi bokkul jikko yu wut xel yi bokkul noonu la demee kon déggoo gi jublu gi maslaa bi déggoo gi seen biir jublu gi maslaa bi loolu mënut a mënut cee ñàkk ci société bi te ngeen xam ne liggéey liggéey bu rëy la amul benn société boo xam ne yaakaar naa ne mën na ko war na ko mën a ëpp doole ci Sénégal wala bu ko lu ko ci ëpp doole bu doxee tuuti dana tiim société yëpp ndax Sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom moom la boroomam may te boroom may gi yëmale ko fenn lu ci mat lu ci xaj si dana feeñ dana lu ci xat lu ci xaj ci àdduna dana dana feeñ da xam ne xajul sax ci àdduna waaye la ci xaj nag dana feeñ te wërsëg gi wërsëg da cee bokk wërsëg da cee bokk ah, sëñ sëñ Bilal am nañu waxtaan woo xam ne euh, dama ñëw rek ku fekk ci mbooloo mu ñëw fekk mu taxaw ci moom Mourou ma woon njëkkoon a nekk. dama ne sukk ma gërëm sukk nuyu ko mu daal di jàpp suma loxo as mbaar su ndaw su gàtt ngi fi mu daal dem ba ci mbaaram maa moom rek mu toog mu toog ne fa toog ma dama laa bëgg wax. wërsëgu mu dana wax tuuti rek mu ne ma sax dama laa bëgg a yi ñuy wax fu mu bàyyi ko ma ne tekk di ko déglu bi mu tàmbalee jàppoon naa li mu wax duma ci xam dara waaye xam naa lum mu def ci man mu ne ma wërsëg moom ñëw fi ma nga àllaaxira ab dërëm moo fi ñëw ab dërëm moo fi ñëw mu ne dërëm nag ab dërëm moo fi <laughs> moo moo ñeent fi fi tànk yëpp rasulullahi ko moom tànk bi la ñëpp bokk tànk bi juróom-ñeent yëpp xaram la loolu mooy mooy yi fi daal ñeent fi fi ne tànk yëpp rasulullahi ko moom mun tànk nag fukk su la juróom-ñeent yëpp xaram la benn bi rek moo ci lew mu ne bi sëriñ bi ñëwee mu ne mu ne rasulullah yi ñeent fukki tànk yooyu ak jaru ñoom fi dafay xaju ndax ñeent fukki at yi amul atte ñaar fukki at yi amul ci jot ñu aj wërsëg woowee ci ñeenteel bi asamaan bi sëriñ bi ñëwee liggéeyal yoon te ba mu gënoon ko ñu aj wërsëg woowee jox ko te jëmul ëllëg jëmul ëllëg noonu sëñ Tuubaa sëñ Sëñ Sëñ moo ko wax moo tax ma ne ma ne li ko li suñu borom li mu may sëriñ bi wërsëg da cee bokk da cee lenn la ci rek lenn rek la ci wërsëg lenn rek la ci kon bu ngeen xooloo xalaatee loolu da xam ne fi ngeen tàmbalee ak fi ngeen akk ji gaaw gaaw gi gàtt da xam ko rek da ci mën a xamee ne dara la dara ji muy sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa rek la ak mayam ji mu fenn ginnaaw am ngeen tawféex nag jóg ne da ngeen di liggéey sëñ Tuubaa ah mel ne da gàtte nu leen nan mu ne dañ ci gàttan dara nag du ko yóbbu fa ngeen ko bëggee dul rek yii ma leen wax il faut que jublu gi day genn mooy liggéey sëñ Tuubaa il faut que ngeen déggu seen biir da ngeen di jikko yéeg xel yeeg xalaat yeeg yëpp sax génne leen ko xam naa ne loolu mën mën mën daal jaar naa ci ndax lu xam ne mën na ko sëñ Moussa dama ko daa wax foofu may ñëw rek eh, na nga xam ne ënd maa ko jikko ënd maa ko xel kon wuur na ma ne jublu gi nga xam moom laaj te ngeen ngeen mën a dox déggoo déggoo la laaj déggoo ko kenn ku ne day bàyyi ci ko mu xelam ngeen ànd rek jublu ci liggéey bi la ca des mooy seet masaa yi ci war ndax ci du mën a ñàkk da ngeen xam ñu xam ñu xam société ñu xam daraje ñi ci ñi ci tëggu ci liggéey kenn ku ci ne lay àqam ñu ñu du ko du ko jox jublu gi déggoo gi masaa bi waaye da génn jikko yi moom ak xel yi da ngeen koy génne fe sànni leen ko ma man naa xam naa ne mënees na ko dëggu gi rek moo ci am solo dëggu ci Sëriñ Tuubaa rek moo ci am solo dëggu gi rek waaw loolu rek la ca dolli ko mooy bu ngeen fi jógee li tàmbalee tey lépp lu ngeen di liggéeyati na ngeen ko tënk andil ma ma ko lu ca nekk lu ce nekk rek ci loo xam ne mooy tax moo moo koy gàllankoor walla loo xam moo koy tax a dem daanaa ko xam danaa leen ko noonu rek la de. noonu rek la ah la ca dolli ko nag bi ma bi may déggee digmati yi. Eh, di jooy yeeg yooyu yooyu ba ma dama dama ne liggéey lenn lu ñuy liggéeyal Sëñ Tuubaa du seetaan mukk ñu di ko rax lu ko nam rax rek naa xam fa jaar noonu nag tëdd na ne nan baal bopp lay tàmbalee la nga waxoon alaji baara digg naa ko maa yow yàlla moo fi nekkoon moom am lu mu laaj nga ne ko man ko du ma digg du ma tere soo kii du ma digg du ma tere soo kii bàyyi naa ko bopp bàyyi ko sama bopp man mii nu laa fas yéene def wala bi yëpp lu ñu fas yéene lii nga xam ne moom i sëriñ Tuubaa la yaa fi nekk sëriñ Tuubaa noo ko bëggee rek bàkki doon ko ñu ne amuñu tànn amuñu bëgg lépp tey ni ko sa loxo ji bëgg na ko sëriñ Tuubaa képp day ay ay silmaxa lañ lii bi ay dab te saafara bi posante xamee wuñ ko weñ nag dàbbali ji ab soow waaye xëy ko tax bu tàbbi ci waaye du bañ bëgg góob rek boo tax lu ñu def ñoom te rek ñëpp dañu jéggal jotaay nag dañuy jéggal njaal bu fi bari mukk ci àdduna ndax bëgguñu laa soo ci dara ñëpp kay loo nga ñox su njëkk yi war nañ ko delloo te jéem a dugg ci ibaadatu waaye ko bàyyi ci àll ba jël jël ibaadatu suñu toog ma ibaadatu ñu ngi gën a joxe suñu bopp lépp mbooloo mi ñu teg dañ soloxo yaay lépp ci

waaw xëy na doomu aadama nag moom nii la demee li nga wax suñu jukki kenn ku am nga jikko joo xam ne mënu ko ànd ak waaye man moom mii ni ko wax te ma ko wax ko dégg suñu mii ne ñëpp nañ jël nañ kenn ku ko damaa bëgg a ànd nit ñi bëgg a dox ma bëgg nga teg ma ci yoon loolu mën ko de daal dema kenn ne xool a ànd moom nga téye ko benn jikko bàyyi ko mu si yàlla téye ci ñoom xam kenn mu naa wax lu ma gis nag muy bëgg Sëñ Tuubaa. Ah, waaw noonu rek loolu laa téye ci ñoom de. Eh, di baax loolu laa téye ci ñoom. <laughs> kenn mën naa yàq doomu aadama nag. tarkalla kenn ku ne téye naa ci kenn mën a yàq sama morom. tarkalla lu ma ci dox kenn maa maa ñëpp daal. ndax bis ni xam ne bopp xar yaa ko mën a ŋànk. ŋànk suñu bopp bi xar na. dimbali ñu ngi Sëñ Tuubaa. ba lii dara bu ci am tey. ci laa nekk incha allah waaw ñu ngi yàlla lépp loo loo xam ne dama ko ànd ak ko àndoon sax waaye dañ ko gën a ànd maa ngi seen biir lu xew lu mu mën a doon rek waxuma mu ci mën a doon rek lu ko jaree danaa ko yëg waaw ñun daal lu lu ñu def bàkke xew mm. mu xër ay doomu aadama ñu juddóondoo ah. bokk fi yaroo il faut que ñu rek dëgg la dëgg jikko dana jikko jooju ñun ñëpp dañu ko teg fële te yëg jikko yi ko sëñ bi rek damay jéggal jël te jar yi mooy mooy yëf ñu ngi gën a di nga suñu bopp de di nga mbooloo bi ak pas-pas yëpp nga téye bi nga woote ngir Sëriñ Tuubaa tax war nga ñu aw yoon ndax loo am na nga toppee la ko may na nga toppee lu mënta may doomaa la amut loolu maa wax maa wax woon waaw man sama kilifa waaw dama koy bàyyi ak boppam bàyyi koog sama bopp loolu laa jëfe boobu ak boobu si jataay waaw ñun itam ñun ñi ñuy seer yàlla bi ñun bàyyi lañu suñu bopp bàyyi la sa bopp <laughs> lu ñu digal lu ñu tere loo am dañ nangu kilifa la ko may te nit ku amee da nga am kilifa nag doo doo juumati bu ko yàgg kon nag jox na suñu lépp gi Sëriñ Tuubaa jërëjëf ñuy jégul kàddu yi yëkkati